مصطفى إذ جاء يمطار من تمر المدينة ñu ngi nuyu kilifa yi fi nekk yépp di leen ziyaara di leen ndokkeel it di ndokkeel suñu bopp di ziyaara ñépp ci àjjuma ju tedd ji di ñaan yàlla mi am sutura yal nañu yàlla boole defal sutura ñi ñuy jukki di leen nuyu du dara lu dul rek dañ yaakaar ne war nañ leen mën a tudd ñu yóbbaaleen ñi ñi ci des loolu kum bi cheyin min al xawfi wal juuci wa naqsin min al amwaali wal anfusi walsamaraat wa bassiri alsaabirin alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ulaika alayhim salawaatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun ñu ngi koy jëmale incha allahu ci feebar bi nga xam ne moo fi wàcc ci àddina bi yépp muy coronavirus ñépp a ngi wax waaye ñépp yiw rek lañ ci jublu ñépp a ngi joxe dog waaye ñépp yiw rek lañ ci jublu ak wér man nag fi may tàmbalee mooy fi aaya bi yàlla wax suñu borom moo wax ne na nabluwannakum danaa leen nattu bi shay'in ci lum mën a doon baatu shay bi shay'in ci lum mën a doon mu neex ma man yàlla rek danaa leen ca natt <laughs> yàlla mën a wax mu ne wala nabluwan na te daf ko gëñ waaw bi waaw xasam la laam bi laamu xasam na daf ko gëñ ne danaa leen nattu man yàlla bi shay in ci lu mën a doon mu neex ma man yàlla mu commencé nag di détails yi yi nit ñi gën a miin yi nit ñi gën a miin mu koy détaillé waaye bi shay in ji rek lépp tàbbi na moom la Serigne Cheikh Ahmad Tidiane di wax lu ne wax na ko i affaireu xaleel la coronavirus c'est di enfantesse yëfu xale la feebaru xale la feebaru gone la gone lay rey gisoo dafa épargner liir yi liir yi duñ gone mag lañ liir yi duñ gone de mag lañ ndax ñoom ñu nga ca alastu bi rabbikum ja balee jaa tax ñun ñii nag ñoo ñoo tuuti ñun ndax ñun dañuy gën di jege dee ñoom ñuy gën di jege màgg moo tax du attaquer liir parce que liir am na am na euh, cellule am yi cellule liir yi ak bactéries yi nekk ci biir liir moom rek moo mën a xeex ak coronavirus moo tax du le du rey liir kon yàlla liir yi ñor nañ ko dafa ne naa bàyyi liir yi rëqu ndigg bàyyi liir yi ak yaayu liir yi ak maamu liir yi parce que ñoo ñëw maa fontoo li may wax dem leen ngeen gëstu ko man duma eh, ma tëb rek wax non man duma ma tëb rek wax non du ma wax yàlla mag ñee koy fontoo moo tax mu ne bàyyil ma rëq ndigg mag ñi bàyyi fi liir yi Serigne Cheikh ba muy wax lii yàgg na mu ne nit ñaa ngee ragal malaaka ndax dooleem malaaka ñu naan la malaaka bu la jàppee nii ak naleeg naa ak naa mu ne nit ñaa ngi ragal malaaka ndax dooleem mu ne waaye yàlla am na ay virus yoo xam ne ñoo ëpp doole malaayika bu leen yebalee ñu faagaagal lu malaaka mënta faagaagal <laughs> mooy lii xew ba ko Serigne Cheikh di wax kañ la ñun ñu am awliya yoo xam ne dañ ñuy wax lu ñëwagul Serigne Cheikh su ma juumul 2007 la ko waxoon man duma fàtte ah 97 97 ak léegi ñaata at la 22 ans coronavirus door a ñëw maamam Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu taala am na pest bu fi amoon jamonoom taalibeem fii ci Tëngéej du ma tudd tur ndax xëy na du neex njabootam ah bay di waaw kañ sow Mohamed xëy na du neex njabootam waaye biñ tàggee njaboot boobu Seydi malik ne ko génn na àddina te yaa ko Maodo ne ah kooku de man la joxoon boppam kon fokk ma dem taxawee ko gouverneur général yónnee ci Maodo ne ko bul dem foofu pest fa am boo demee mën na laa wàll Maodo ne ko man weesu naa fu ma peste di duggee mu ñëw Tëngéej pour pour sangu ko ñu ne ko jëlal ay gants mu ne lu may doyee gants yàlla jox ma gants yu kenn du gis maa ko sang ba mu set ma sang ko jullee ko dem ñibbi waat yaawal Seydi Hadji Malick ko dugg ci wanag wa sang ko ba mu set sàng ko bilagan jullee ko denc ko dem ñibbiwaat Tiwaawan dundaat fi ay at door a wuy ji borom ma dégg benn journaliste RFI ndeysaan dafa xamul rek nag dañ koy jéggal nag mu ne yéen sénégalais yi particulier africains yi particulièrement sénégalais yi na ngeen set ndax feebar bi tilim lay bañ xas nañu moom bañ rab ma ne ko yéen ñi set agay jeex bi <laughs> ah waaw moom bàyyiwul xel li mu wax sax fi mu ne nii France ñu ngi yegg ci ñu ngi ñu ngi réglé bañ a yegg ci niveau 3 passé nañ niveau 1 dugg nañ niveau 2 ñu ngi koy génn di dugg ci niveau 3 xam nga luy niveau 3 mooy danañ dem ba kenn dootul dem supermarché élèves yi dootuñ jàngi dëgg la de ñoom de seen dëkk ya seet nañ wecc waaye ñu ngay jeex de siin sej na wecc waaye ñu ngay jeex de ñun ku fi feebaragu waaye Sénégal nañ dalal seen xel ban sénégalais moo fi feebaragu ñi fi feebar yëpp ay étranger lañ na yem ca ñoom mbës ñun ay jullit lañ li sëriñ Cheikh teg ci ne nañuy ñaan tey faju waaw mu ne bu pest amee nañuy ñaan tey faju mu ne am na ñoo xam ne ñaan lañ gëm am na ñoo xam ne faju lañ gëm nañuy ñaan tey faju na ñuy ñaan tey faju lii la sëriñ Cheikh wax te ñaar yooyu rek moo mën a nekk nañuy ñaan tey faju nañuy ñaan tey faju lii rek la Serigne Cheikh wax kon ma joxe loo xam ni ñun ñépp a koy bokk du dog nag dog du ñépp a ci am accès dog du ñépp a ci am accès ñaan du ñépp a ko mën mën nga yàq araf yi wax musiba alaaji Abdul Aziz mi ko daan def day wote ca grande mosquée dëgg la ñang wala dé wala mu woote ca zawiya ba toog di wax ñuy baamtu waaye du loolu de fekk mu ngi ne càmb arwaaxul naas yëpp ci loxom ndax huwa qutbul fardul jaamia nit ñi buñ gis nga bu ñuy roy roy sa maas toppandoo sa morom diiroo koo yamal mbagg saa bu alaaji Abdul su woote waan fekk na arwaaxu jaam yépp mu ngi ko téye ci loxoom benn bu ne mu koy contrôler donc bu mu joxe kenn ku ne xam na la ci sa pourcentage mu teg ko ci sa loxo bàyyi nga dem loolu xut bu rekk ko mën sëñ Babacar Si waxe noppi moo tax ñoom dog yañ daan joxe ñoo koy superviser ci biir ak ci biti waaye yow nga sànni ko rek ci internet bi balancé ko waxuma ne bon na de baax na de ndax ku ko sikkarit am tiyaabo ndax turi yàlla kenn du ko sikkar ba dem ak loxo yi nen waaye li may wax nii nag am naa ci ndigal yi sama kilifa yëpp man lu ma mën ndigal lu ma ci wax képp koo xam ne yàlla mën loo na la ko bu timis jotee am na ñu ma ko jotoon a wax waaye période bi changement amaat na ci ndox feebar nu muy gën a demee changement di am benn degré bi di yokk wala muy wàññeeku léegi diggante timis ba bër set waaye dangay bàyyi ba jant bi so nga boyal furno furno bi na doon këriñ yu bees gën ci a néew ñetti doñ ji këriñ bu ko ëppee it baax na këriñ yu bees këriñ gu bees ngay jënd boyalee ko fourne bi te fi nga koy teg nanga nga fexe waa kër gi gis ko bu la neexee sax kuy romb ci mbedd mi gis ko maa ngi ko teg nag ci kullama awqadu naaran lil xarbi atfaaha allah boo ko boyalee ba mu xonq fekk teg nga paanu ndox wala siwa ndox ça dépend ci ni kër gi toll ci ay nit tegal sa paanu ndox wala sa siwo ndox bu booyee ba xonq nga jël xal ya sotti ci acca waa kër gi ku ne mën na caa guux ñetti guux sangu ci ku ne guux ci ñetti guux sangu ñu def ko balaa bër di set benn yoon doy na sëkk ku ko def benn yoon doy na insha allahu ku ko def di nga bokk ci ñiy nettali naan atum peste ma amoon Corée Venice xaw ma virus xaw ma di nga bokk ci ñi koy nettali dégg mm, ku ko ku gëm nag defal ku gëmut bàyyil ñi may seetaan it forcé wu ko kenn ku gëm na def ku gëmul na ba waaye am naa ci nag sama ndigal di kilifa amul dara looy tari tariloowuma kenn faatiya tariwuma loo kenn falaxi ma kenn naasi la ñuy tari samay kilifa tari nañ ko ba noppi yéene rek na nga ci yéene mucc rek booy sangu wala nga ciy naan yéene ci mucc rek jeex na xanaa lee gën a yomb dog billaahi ku ko def mucc ku ko ci defit bu la neexee sax dem Corée bu la neexee dem Chine wa sharafil quran boo demoo nit ñibbisi ku ko gëmit te nekk ci réew mi bitim réew ñi koy seetaan cinq continent yépp ku ko ci gëm defal ñi nekk extérieur extérieur am na këriñ xëy na fur na mën na faa ñàkk waaye teg ko ci sa niñ koy waxeeti sa fuur fuur bi ngay lakkee sa yàpp ak yooyu teg ko ci rek ba xal yi xonq nga seppi ko kudd rek def ci dem sangu yàgg sa njaboot yëpp naan ci urkut bi li bi rijlika hada mughtasalun baridun wa sharab foofu laa ko teg kullama awqadu naaran lil harbi atfa'aha allah kon nag ñun ñépp ñu bàyyi ci xel te xam ne balaa la nag bu yàlla wàccee ca noli balaa la bu yàlla wàccee ci àddina bi pour jeexal passage boobu balaa mosu fi jóg te du fi jóg waaw foo ko sangoo baax na amul foo koy sangoo douche ak bala douche ba sax a gën douche ba sax moo gën mën li may def eh, eh, na ñëpp tànk rek dem sangu ku tànk rek dem sangu lu tooyal sa yaram rek la naan bi tamit ñetti góoxu rek la ngay tànk mën nga ci góoxu ñett yoon naan eh, door cee sangu jeex na insha allahu di nga bokk ci ñi koy nettali dañ ko def nag xasha li wajhillah te am ci suñu ndigali ay kilifa bokk na ci Cerno Bachir Muntaga Daha Cheikh Alhaaji Omar ak Alhaaji Badara Diop ca Saalum ak Alaaji eh, Saaxo bu nit ñi baree bu paanu ndox bi doy nga dolli boo xoolee ne mu ngi waaj a jeex rek dollil ndox mi waaw su fekkee ñii sangu dañu bari nga xool gis ne paan bi mu ngi bëgg a jeex dolli balaa moo jeex dollil ndox mi dégg nga waaw wax farata la boo xoolee ne paan bi mu ngi digg na te ñii sangu jeexaguñ rootal ci robine bi rek sottiwaat ci ndox rek ñu continuer sangoog naan incha allah jàmm rek. na nit ñi dalal seen xel këriñ gi sànni bu ngeen paree këriñ gi sànni leen ci biti bu leen ko boyalewaatee sànni leen ci biti mbala ngeen def ko ci seen paano mbalit waaw këriñ yi bu leen ko utilise waat xam nga lu tax seytaane léppam dafa ñuul duma ko détaillé nag seytaane yi koy def diggante timis ak fajar la ñuy wàcc mooy li Serigne Cheikh waxoon rek